ndeysaan mbokk yi 23 heures passé de 25 minutes Malick Ngom sifflé na bi. ndeysaan ñu nekk tey mbokk yi ci bis jeudi 10 août 2023 ci arène nationale. ndeysaan jàmbaar production mbokk yi moom moo tëgg combat bi Garga 2 moo nekk à droite ambulance moo nekk à gauche ñu tuddee ko père Ali Sow papay papa Sow Fadam HBK ñaari xale yaa ngi ci digg géew bi. ñu ngi léewtoo ñoom ñaar ñu ngi léewtoo ñaar ñu ngi léewtoo Garga mi ngi mel ni ku jiital ca gauche. waaw. gos lay jiital moom la jiital. assurance mi ngi dox. ambulance mbokk yi mi ngi dox. moom taxawul benn place mi ngi doog a taxaw. waaw. Ndeysaan. Ndeysaan ñu fàttali la ambulance mi ngi jóge ci digganteem ak armée. wallaay Ndeysaan. daan armée. daan armée jël bu rëy. assurance fi mu bëgg a jaar yëpp garga fatt na garga fatt na ko. ah ambulance bu ma koy doon tey. ah. xeex rek koy may ndam. xeex rek koy may ndam. waaye xeex ak déplacement. waaw ndax li problème Garga 2 ma gis daa aussi ci biir bëre bi. waa man waa man waa man Moustapha Gueye. waaw xeetu xeexam ak déplacement am lu tax jàngaluñ ko xale yi. ci kenn rek laa gis ci xale yi. kan muy jën kay waaw mooy baayam. Moustapha Gueye baayam. waaw waaw double gauche yooyu jën kay rek di def anti droite. ba pare déplacé wu te du ko tee waaw. ay waay digganteem ak Zarko. eh boobu làmb Ibrahima yaa ko tëj. laa ilaha illallah. ndax Tafa Gueye moo Yékini da ko ëppee plus de cinquante kilos. mais Tafa Gueye ngi dóoranteeg Yékini di déplacé. et eh, Malick gaa yaa ngi bëre. maa gaa yaa ngi bëre. Malick il faut nag làmb ngeen may leen lii. waaw ñu may leen tuut tolérance tuuti. ndax lii sax dañuy dimbale tuuti ñu dund làmb tuuti. waaw waaw attention garga méb na de waaye demul. garga xeexam ci gëdd bi la nekk. ci gëdd bi la nekk ah. waaw da lay gëdd da ko doog a xeex. kon gëdd bi bari na ci lam waaw <laughs> moom da lay mib rek bu mibee rek. ah droitam day ñëw kon méb bi du garga kase. <laughs> waaye ambulance. Ah. waaw la loxo ya laalante nañ Modou Mbaye. ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi jegante. garga mi ngi na tekk. déplacement amaat na ñoom ñaar seen loxo ngi laalante attention Garga 2 mépp na. ndeysaan. Garga 2 ambulance. oh. Garga xam nga lii lu may fàttali. lu lay fàttali Modou Anta. Forza daa ba da koo bëree daanu. wallaay wallaay. ah. waaw Jordan ci la ko daan. ndeysaan moo tax day tey waaye Garga bugul yàq combat am ndeysaan attention attention ambulance sànni na ambulance su ma doon moom du ma xeexee laaw. déedéet crochet laay xeexee. mais assurance la wala ambulance. ambulance ambulance bu Thiès. attention ambulance tur yi laay xaw di jaawale. attention garga de sànni na moog. ambulance daw nañ daje nañu. daw nañ daje ñoom ñaar ambulance jàpp na moog garga ñoom ñaar ndax sàcc doole du am. xaw na ci am sàcc doole am na ci garga mbo ata xatar bi xatar bi lay doon wala mbot lan lay doon. attention la ilaha illallah sàcc na ko doole. daan na ko lamb ja jeex na. daan na ko da koo sàcc doole. kii mbër la mbër la bu mag. daan na ko kii mbër la maa la wax lii. kii mbër la. maa la wax lii daan naan la ko su génn. kii mbër la waaw waaw doole doole doole. waaw waaw doole as waaw waaw. garga waxoon daal dañ ko ñeewantal. doole ci la doole ci la doole ci la waaw. doole ci la non garga mën na doon champion. Oh, oh. Ah. war na mën a doon champion. del xool da koo song mu dëbb ko col lalli ko. waaw taf ko ñëw ko ci wet gi. keroog ko ci xabal bu xatar bi ko mu wéñaat ko. waaw waaw. la. garga nag ambulance dafa bëreeg moom ci bëre garga. Oh. waaw li ma leen di mën a waxal daal combat yi neex nanu waaw lamb gi neex na. vraiment ay jàmbaar lanu mbëri yi ñoom ñëpp kenn personne n'a démérité. parmi les vaincus. waaw ñoom ñëpp nag ñu leen di encouragé. ñi daan yàlla sa taxaw leen la leen. waaw di félicité waa jàmbaar. encore une fois yéen itam reportage bi neex na 2STV encore li nu mën rek ñoom lii leen xam dinañ ko def et puis guddi na vraiment ñëpp a ngi toog seen kër yi di seetaan lamb macha allah yal na yàlla def jàmm amiin jërëjëf Mbaye kontaan nañ ci yow